sëñ bi gannaaw biñ la nuyoo. d'accord dama gis ni que ni sonn nga lool ci woote geek jour euh, fii ak ñaari fan ci ginnaaw ma bëggoon rek nga defal ñu récit ndax li nga bëgg a mooy défaillance bi am ci système sanitaire bi ci ci période bi di Covid 19. waaw donc euh, euh, wax ne Eh, bama ma sentir ne sama yaram dafa dafa tang jër ma xol ne sama gorge bi da doon métti sama gb ma amon aussi tamit ay mal de dos ci la woy sama ben xarit ma ko nama jox numéro bi nga xamantene mom la meuna wo a parce que lima japp dama xamne que dama jappone dama dama am dama présenter ay symptômes bama len woyé jot mais bama len mais balaa balaa balaa nga ban heure nga leen commencé woo ak ba ban heure nga leen jot. depuis ci suba laa leen doon woo ba ma leen wooyee ba jot leen. Mhm. c'est-à-dire que ils que euh, numéro vert bi mooy quinze quinze dañ lay jox après beneen ay numéro numéro yu bëri sax jox nañ ma soixante dix jox nañ ma soixante dix jox nañ ma soixante dix sept donc jox nañ ma ay numéro yu bëri. Mhm. ba ci wootee. donc ñu dama xaaral ñu ñu transféré la benn docteur mhm. ñu jox ma docteur yi mhm. docteur bi dama sëñ bi lan moo la dal ma ne ko ah, docteur man de dama dama présenté ay ay symptômes mu ne ma lan ak lan moo lay kii ma ne ko man de dama am mal de gorge sama yaram bi dafa tàng jër mhm. te dama gis ne damay liw sama ginnaaw aussi tamit day metti mu ne ma ah kon foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma donc tu présentes les symptômes mets-toi en isolement donc je me suis en isolement. yow yow yow kese yaa dëkk wala da nga dëkk ak ay nit. waaw dama dama dëkk ay nit. Hmm. ay nit. léegi ba ma nekk ma ma ma nekk en isolement ma nekk en isolement ma toog ba benn moment. ñu hmm. ma dinañ la jël si. Hmm. ma toog toog toog toog toog ñëwuñu ma wootewaat encore. ñu laajaat ma encore ce qui ce qui était bizarre. ñu encore les mêmes informations ma joxaat leen ko.

yow ba ban ban heure nga ban heure nga commencé nga leen commencé wo exactement. man euh, ci suba. waaw ci suba si daal laa ok xamoo jàppo heure bi. non non non jàpp moom woon ci suba si ba ngoon bi. d'accord. après ma ne daal sonn trop parce que boobu sonn naa ma ne euh, xaaral ma dema sans bopp hôpital. Mhm. mais nag pour pour éviter aussi jël oto parce que mën naa jël oto mais avant boobu sax dama dama laaj médecin bi ma ne ko. Mhm. puisque man kese maa nekk nii sama néeg. Mhm. ma nekk en isolement. mu ma waaw ma ne ko mais man su ma xiifee lu may def ma lekk. Mhm. mu ne ma ma da ngay sol masque mu ne ma da sol nga ma ne ko waaw sol naa masque mu ne ma puisque sol nga masque mun nga génn dem jënd lekk ma ma xool ne que le gars il pas intelligent. Mhm. parce tey si si la tey intelligent ak risque yu am yëpp. parce man euh, kenn kenn kenn kenn xamuma ndax am naa comme amuma ko parce que je présente les symptômes ma génn tey. dem ci benn restaurant ne ko jaay ma lekk ci xaalis jox ko. Mm-hmm. kooku xaalis boobu bu ko jëlee fekk ma am ko lor naa ko mu jël xaalis boobu wecci ko keneen lor na ko. Mm-hmm. donc ma ne loolu duma ko def. Mm-hmm. ma wàcc dem hôpital. balaa nga dem hôpital dañ la bindaloo dañ la waxoon garab yooyu jël wala. waaw waaw avant boobu docteur bi ba mu mënee di présenter les symptômes. Mhm. maintenant gis nga sa yaram dafa kii léegi euh, euh, jël bindal bindal lii ma lay wax nii ordonnance yi. Mhm. ça fait nga commencé koo jël. ok léegi puisque euh, ba loolu amee ma ne xaaral j'appelle un un ami. un mhm. mu dem jëndal ma garab gi parce que mënu ma waxoon mën nga dem pharmacie jënd. mais ma ne nit ñi ils sont pas intelligents parce que man nan laay présenter des symptômes di dem pharmacie. donc. ma woo suma cousin manako ne ko bul ñëw sa ci kër bi tollal ci biti nga sànni ko sama balcon donc ma defal ko transfert d'argent mhm. mu dem jëndi jëndi garab yi ci la ma médecin bi waxe ma ma jënd rolicine mhm. donc rolicine comprimé ma jënd ipsa ipsa c mhm. donc ma jënd aussi doliprane mille milligrammes donc ñu ñu mu dem jëndi ko après ñun de ma sànni ko sànni ko sama balcon ma jël ko léegi moo toogee xool ne sonn naa ma wàcc na xaaral ma dem hôpital parce que moo gën a wóor. parce que ma leen xaaree ñëwuñu. ma dem hôpital léegi si laa ñëw hôpital. ba ma ñëwee hôpital ma dox nag parce que bëgguma jël oto parce que risque yi laay bañ risque de contamination bu fekkee ne am naa comme awuma ko parce que mën naa jël oto jox chauffeur bi xaalis kooku mu wecc keneen dama koy lor damay lor keneen ki. Mhm. léegi ba ma ñëw ñëw ba ci buntu hôpital bi. fekk fa benn médecin buy wax ak keneen ma taxaw ci bunt bi en quelques mètres. ma ne leen bonsoir ñu ne ma oui bonsoir ma ne leen est-ce que vous pouvez me mettre en en en quarantaine wala en en en isolement. ma ne ma qu'est-ce qui se passe ma wax ko. man ma ah bon ma ne ko waay donc euh, il savait que dama peut-être li ma wax nii symptôme yi la. Mhm. ma ne ma nañ dem ci ginnaaw bañ demee ci ginnaaw. mu jël seen uh, thermomètre bi teg mu ne ma léegi dama lay féete ginnaaw mu féete ma ginnaaw dara jël ko teg ko sama bopp wax ma bu demee quelque temps mu andi ma ci benn salle mhm. après mu ñëw dama bim la def bim la bim la tegee thermoflash bi sa température ñaata la woon à 39 4 thermoflash bi 39 4 39 4 donc mu ne ma yow sa yaram dafa tàng ba parce que dama doon diw bu baax sax mhm. léegi ba mu ñëw nag après mu andi ma ci salle

fekkoon naa fi ñaar ak ak man muy ñett. donc ce qui est bizarre dans ça. léegi ba ñu mettre ba ñu mettre en isolement. Mhm. léegi euh, mais man ce qui est inquiétant. Mhm. Euh, depuis barki démb ñu ma naan euh, résultat yi dina génn parce que ça devait durer vingt quatre heures. Mhm. donc démb lañ ma waxone dans la journée. Wa institut Pasteur dañu ñëw jël def ay prélèvement wala ñom ñoo def prélèvement bu leen yónnee leen ko.

tey euh, buñ la mettre en isolement parce que yéen ñëpp vous présentez les symptômes. Mm-hmm. mais man mun naa ñëw après résultat yi génn ma négatif. Mm-hmm. fekk ma nekk pali. Mm-hmm. mais man li ma ci jaaxal tey condition yi fi nekk. yan condition ngeen nekkee foofu. condition yi fi nekk mooy on partage les mêmes toilettes te les mêmes toilettes ce qui est inquiétant mooy savon bi nit dugg ci toilette. bala ngaa génn nga raxas sa loxo amu fi. dara amu fi. ci tey man mun naa ñëw. ci structure ci sanitaire bi ngeen nekk noonu. saabu amul ci toilette bi. tey man mën naa génn sama résultat génn ma négatif ñibbi sama kër tandis que ñi ngi fi nekkaloon kenn positif mais condition yu ñu boolee. donc man na tax ma dem sama kër nekk ak sama waa kër ainsi de suite wàll leen ko ba toog quelques jours mu manifesté ma ma positif mu manifesté fekke ba ma fiy génn ba ma fiy ñëw feebaruma mais ndekete fii laa ko jëlee c' est ça qui est inquiétant c' est ça qui est inquiétant beneen bi mooy mhm. même masque barke dem dem sama masque benn nopp bi dafa dagg mhm. ma ne ko docteur mu ne ma naam ma ne ko ah du ngeen ma may masque mu ne ma Euh, fii de amuñu masque j'étais obligé d'appeler pour ñu jëndal ma masque andi ko masque sax amuñu ko hmm. donc c'est ça c'est ça qui qui est grave dans tout ça et puis beneen bi mooy mm-hmm. cest à ku ñëw hôpital actuellement yaa jël sa bopp en charge waaye yegg sa rek médecin yi commencé la bindal ordonnance yaay jënd lépp mm-hmm. c'est-à-dire que pas de prise en charge yow yaay jël sa bopp en charge ci lépp c'est-à-dire que tey man fekkoon ne euh, dama àndaale woon xaalis su ma ñëwee c'est-à-dire que moom duñ ma laal ak ak malgré que les symptômes que j'ai présenté duñ ma laal benn yoon parce que àndiwuma xaalis donc ça s'est passé comme ça lii moo fi nekk. d'accord c'est-à-dire que donc les milliards que les gens disent les milliards que les gens parlent di ko def ci ci lekk bi balaa nga ne naam ne fa tey bu ñu ko defoon ci santé bi.

ñi lay jaajëfal di la ñaanal uh, nga wér ak jàmm ak mboolem koo xamante ne ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi. ok jërëjëf.